dalee nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay yi nga xam ne moom la ñu xëyantoo yéenekaay gii di mi Rewmi Quotidien L'Observateur Enquête Vox Populi Walf Quotidien La Tribune Les Échos Source A yéenekaay yépp xëy dikkal ñu ci li nga xamante ne enquête bi daal dina koy wane ci faatu Binta Camara mi nga xam ne rey nañ ko samedi ji nga xam ne moom la ñu génn ca diwaanu Tambacounda yéenekaay gii di mi Rewmi Quotidien mu ñu xamal naan ñu Binta Camara dañu koo xooj ba mu dee police ba ñu ñëwee dañu koo fekk mu tëdd ak musóor nekk ci baat bi yéenekaay gi nee na Pape Aline mi nga xam ne moom la ñuy wax ne moo ko rey Faye bi ko police jàppee ànd ak moom dem këram fekk nañ fa ab kilote boo xam ne kilote bu taq deret la téléphone Binta Camara néeg Pape Aline Fall la ko fekk mu daal di xotti matelas bi dugal fa téléphone bi yéen a kaay di réew mi quotidien mu ñu xamal ñu ni ki démb denc Binta Camara la ko jébbal yàlla sunu borom ci naqar ak tiisa armeelu saare gileel yu Tambacounda lañ ko denc yaram dawoon na xol tooyoon na Malal Camara baayu Binta Camara la mu xam le nee na jamono ji am na yaakaar ci doomam ndax nag ku doon la yéen a kaay gii njabootuk Binta Camara ak ñi nga xam ne ñooy askan wi dëkk Tamba ñoom nag am na lu leen bett lool bi nga xamante ni wax nañ ne Pape Alioune Fall mii maanaam moo rey Binta Camara la ko waral nag journal bi di réew mi quotidien nee na li tax nag mu daal di jaaxal waa Tamba ñëpp maanaam mooy tappale yi nga xam ne Pape Alioune Fall doon na ko def bi nga xam ne def na njombe gi ba pare dafa ñëw raaxaloo ci nit ñi maanaam ëpp leen wax journal bi nee na Pape Alioune mii criminel sexuel la yéen a gi mu ñu xamalaan ñu gardien kër gi nga xam ne moom la njëkkoon a teg loxo xëy na di wax ci l'observateur la mu xamle nee na Pape Alioune Fall dafa bàyyi ba ma génn mu daal di dugg ci kër gi te moo ne day ba téye commissariat moom Pape Alioune ñëwoon na maanaam di ma rendre visite yéenekaay gi du ñu fekk fa Malal Camara baayu Binta Camara mi nga xam ne daat nañu ko boole woon si njaboot gi looloo taxoon Binta Camara wóolu ko ba saa ñëwee si kër gi mu daal di koy ubbi la dee yu bari yi nga xam ne nemmeeku nañ ko jamono ji ci biir réew mii di Sénégal Aly Ngouille ministre bi askanu Sénégal nee na leen nelaw leen ba yandoor ñu jël suñu matukaay te lépp danañu ko lijjanti ba mu ne cook Kumba Gawlo Seck moom nag jamono ji mer na ba maara day taali moom Kumba Gawlo Seck dafa mer journal bii di enquête moom Kumba la mu xamle nee na jamono ji réew mi kenn amutul kaaraange te li nga xam ne nag mooy peine de dañu ko war a indi ci réew mi maanaam ci nii wala ci naa xool nit ba mu neex la nga daal di koy rey te du mujj fenn loole moo war a jeex ci réew mi Mamadou Saliou Sow mi nga xam ne mooy secrétaire d'État bi yor lépp lu jëm ci wàllum àq ak yelleef doomu aadama ci réew mi la mu Diagne nee na peine de mort ci réew mi bu ko fi kenn xaar ndax du ñu ko fi andiwaat viol yi ak ray yi nga xam ne ñoo ngi gis ñu koy def jigéen ñi journal bii di Dakar Times nee na la nga xam ne moom la mën a jur maanaam jigéen ñi dañuy dem ba dañuy ragal góor ñi journal bii di Source A mu ñu xamal naa ñu commission d'enquête bi nga xam ne doon nañ ko def ci 94 milliards yi nga xam ne tuumaaloon nañ ko Mamour Diallo te Ousmane Sonko waxoon lu ni mel maanaam mbir mi nag fan la toll journal bii di réew mi quotidien ak Dakar Times mu ñu xamal naa ñu Marcel Mendy mi nga xam ne moo bindoon ab livre ci deux cent millions a Hissène Habré nga xam ne moo nekkoon ay jamono njiitul Tchad jox ñi nga xam ne ñooy waa Tiwaawan maanaam tiijaan yi ngir nañu daal di koy dugal ci seen jumaa ja loolee nag naqari na ndaw ñi nga xam ne ay tiijaan lañ ñoom nag dàq ñu jamono ji yóbbu mbir mi fa mbaxana doonee benn ndax dañoo bëgg Marcel Mendy andi ci ay firnde ministre Dame Diop bi nga xam ne moom lañ dénk wàllum enseignement technique ak professionnel maanaam nag ni ki démb daj na loo xamante ni mburu du ko daj ci ndax dafa demoon lycée Limamou Laye étudiants yi ña xam ne ñooy ndongo ya ay yuuxu lañ ko gàttandool dañ xuba maara day taale ndax dañu koo mere dañu koo jéppe moom ministre Dame Diop journal bii di Les Échos mu ñu xamal lan ñu en tout cas Yamba de Sall niki démb metti na lool ci ministre Dame Diop ba tey ci biir journal bii di Vox Populi ak réew mi ak l'Observateur ak enquête mu ñu xamal ñu Ousmane Mbengue benn waay boo xamante ne dañu koo teg loxo la waral loole nag da doon bind ci page Facebook am daa di wax ne jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci réewum Sénégal jigéen ñëpp dañ leen a war a rey ndax Sénégal bu amee ay jafe-jafe kenn warulu ko lu dul jigéen ñi journal bi du l'Observateur mu ñu xamal lan ñu moo tax jeexit waa gendarmerie arrêté nañ ko Vox Populi mu ñu xamalaan ñu tey lay janoo ak procureur Abdoulaye Wade ak waa parti démocratique sénégalais ñoom pare nañ jamono ji nag ngir wuy ji dialogue bi yéen a du source a mu ñu xamalaan ñu en bu Abdoulaye Wade demee si dialogue bi risque la ci Macky Sall ndax Abdoulaye Wade ku ko xam xam ne su toogee ak Macky di dialogue dana ko ko sabañ maanaam nag dana ko yàq lu mel ni xeme dana ko yàq mbelengaan waa réew consulting ni nga xam ne moom la koy defee at mu jot bu jugee màkk ci weeru koor gi dafay amal li nga xam ne mooy ay ndogo neema traditionnel ndogu niki démb waa réew mi quotidien ñoo ay woon waaye dañoo ndogu ba maara détaillé en tout cas président moom Mbagnick daan di ñaax maanaam félicité leen ba pare encouragé leen journal bi nee na président MEDES di Mbagnick Diop yemul foofu niki démb ba mu janoo ak waa réew mi quotidien ginnaaw bi mu leen joxee en tout cas ndogul démb li waa réew mi quotidien waxuñu lenn waaye nag waa réew mi FM xam naa jamono ji ñoo ngi xiifal